bopp daal si sa set. yooyu nag te du tere tamit nga amaale sa jotu jëkkër amaale sa jotu kër. Mm-hmm. kon nag bu ñu gis xale bu jigéen rek mu xeesal ba weex wàcc cheveux naturel am rek nga ne amul jotu jëkkëram déedéet. ah gis nga nit da ngay bëgg lu baax déggoo ma de nit da ngay bëgg lu baax bëgguma setu ginaar tamit. ndax léeg-léeg nga wàcc sa cheveux naturel xeesal boo weex solo ba jekk te ku dugg sa kër ne cam cam cuuraay du fa xeeñ xet gu neex rek moo a mel génne nga gis jëkkëram di wëri leneen nga naan kii jëkkëram lan lay wëri leneen fekk na yow setu ginaar la set baaxu baax li muy baax baaxu eh. biti la nii rek waaye bu duggee ci biir day daani rek sonal jëkkëram xet gu naqari kon xale yi bu ñu tëddoon xaw ko ba mu tooy jigen ju yew fajar mhm. deggo ma de mhm. soo yeewoo fajar ter bala sa jeuke di yew nga sangu ba set ya ngi may mhm. dégg def sa ben parfum bu léger ya ba gel wo sëriñ bi tap ko nank bu ko bu ko tap tap yoy nak muy top nan la ni te yow ya ko wara jeuke sang ya ko wara jeuke sang jeuke ko yew a koo ci yoon sax déedéet yaa ko wara jeuke sang ndax dafa am noo yewé ci logique noo yewé dafa am noo yewé yeewee yewé ba jàppal ma rek xola deglu ma rek baaraamu sànqalañ bi ngay téye rek. ndànk ndànk